responsable lañ ba ñu ñoo fay dañoo bëgg a fay mais nag nañ ko teg ci aw yoon parce que li nga xamante ne moo traversé Sénégal ñëpp gis nañ ko ak Covid bi ak yi fi xew yëpp te ñun ay nit ñoo xamante ne ñu organiser lañ ñu responsable bi Covid bi amee dañu jël sax suñu soutien dem yóbbu ko ci état bi kon du ñu ay ñoo xamante ne ñuy bañ naan la ay du ñu fay lañ dañoo bëgg fay mais dañoo bëgg ñu teg ñu ci aw yoon fayeeku ñu lu raisonnable loo xamante ne ñëpp dañuy fay mais ni ñu def démb jaaduwul dugg ci biir marché bi xool ay nit ñoo xamante ni kii euh, bi nga xamante ni jamono baa ngi neex sax ñi ngi doon fay ay dix mille francs ñenn ay quinze mille vingt mille francs ñu di leen augmenter di leen fayeeku lu leen neex di jël force de lord yi di xeexi seen doole na da ngay fay boo mënta fay dañ lay tëj loolu moo jaaduwut su fekkee ne délégué bi bi nga xamante ne moom moo waroon a ñëw taxaw def lii ñuy def taxaw suñu place koo xamante ni yaa ngi bëgg teg waa marché bi lu jaaduwul mu wax taxaw ni carrément lii nga bëgg teg waa marché bi jaaduwul alors que loolu gisuñu ko li nga xamante ne nag moo fi am mooy li nga xamante ni jàll na démb ndax démb loolu lañ def daanaka arnaque la ndax dañoo jékki-jékki yu indi fi lu mat ay dix commission mooy bu ñu dalee ci kaw nit ñi lu ñu gaaw njëkkante luñ dajale xaalis moo muy noonu ñu noonu lañ ko gisee léegi nag la rest moom nañ fexe ba teg ko ci aw yoon moo waral biñ génnee fii bëgg a fayeekuwaat nit ñi lu jaaduwut nit ñi bañ lii moo waral ñu tëj place yi. non lu jaaduwul li mooy xam nga patente da ngay ñëw estimer place bi da ngay ñëw estimer place bi doo ko doo ko mën a fayee mais doo ñëw rek wax ni kii daf ma neex cinquante mille laa koy fayeeku mais kii neexuma soixante quinze mille laa ko fayeeku wala cent mille te am na fi gis nañ ko am nañ ay preuve parce que ñoom dem nañ ba nga xam ne dañuy cumuler sax ñaari place pour di leen fayeeku ñaari place dañ leen di cumuler di leen fayeeku te patente wër demee noonu patente place bu ci nekk dafa am numéro immatriculation boo koy fayeeku da ngaa war a ñëw fayeeku ko defal ko numéro place am defal ko defal ko patente am bu ëllëgatee bu ñëwatee déwén nga mën a présenter sa sa sa sa patente wax ni sama patente ngi nii. mais boo jëlee ñaari place cumulé leen benn benn benn benn patente mais bu subaa boo fi ñëwaatee di contrôler sax mënatoo contrôler lii te benn place boo xamante ni nañ ko def ci numéro place wala dara kon arnaque dong lañ ko jàpp. waaw jafe-jafe bi am mooy xëy. Euh, service euh, euh, de l'économie ñoo fi ñu fay la ay plante yoon daan nañ ko fay nekk jekk muy loon si ba ñu ñu ko fay mais ci anam ya nga koy fay lañ bëgg a xam mooy mënoon euh, may nit ki daaw mu fay la vingt mille quarante mille cent mille nga bëgg a ñëw bëgg ko tripleel ci état boo xam si ñëpp xam ni période Covid la nekk année deux mille dix neuf ba léegi kenn dara président ay dimbalam jox ko secteur yëpp sauf sauf secteur commerce ñun mu ñëw mayuñu ko xanaa bu ñëw doublé li ñu war a fay loolu lañ mën dañoo ñëw yokk ko sax ñu jégal ñu ko ñi ngi doon fay vingt mille ki doon fay vingt mille fay fay ko ne ko cinquante mille ki doon fay ko cinquante mille muy lu métti majorité parti bi yëpp ci leen d' accord parce que dafa am nañu fay démb par erreur ndax yëguñu ko woon position Aziz mais tey bi ñu ko yëgee ñoom ñëpp àndandoo ci même même même mooy mooy tëj sa place toog xaar ñu ñi ngi si suñ li ñuy wax mooy tëj toog suñ place xaar xaar xaaroon kilifa wax ñu jëfee ko mais fa si avantage la xam na ne avantage la ndax xam na ne lépp la ko mu réglé wu lii mais doo dem ci kilifa naan ko lii fi xew mu naan la may ba ma am temps recevoir la fii la toog du dem ci kenn xalaatuñ ko fii la ñu toog kuy soxla wooñu am yéene fay lañ fayoon daaw buñ ñu ko mën damay ñu fay lañ fayoon daaw wax ñu duñ ndax impôt kooku droit la boo xam ne ko war a fay mais nag bu la teg loo mënul ndax ku nga xam ne jamono ji neexul loolu la ndax maire sax defoon na déclaration bi màggalee ba noppi waxoon ni que amut ndax loolu bàyyi woon ci xel jàppoon ne kon dañu koo jégal ndax gis nañ ni dimbali nañ secteur mu képp kenn fenn faay rek état dimbali na la ngir xam ne amuñu recip 25000 amuñu recip amuñu 10000 fi fi gën a fi gën a suufe mooy

te loolu jàpp xam te ni ñëw ci moom te xam ne moom dëw la laxtu la war ngaa mën a ñëw waxtaan moom ba ngeen déggoo ci kaw bu ko xalaatam ñëw bëgg def sa liggéey nga gàllankooru ba bañ ko def ñun ñi war a jaay ñu tëj suñu place toog di leen xaar loolu jafe la ndax ñoom itam defuñu seen liggéey ñun itam defuñu suñu am